Salut les amis de eSport TV et de Babo Show. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également de baisser des commentaires. Un plaisir renouvelé hein. chaque fois de partager des informations inbox sénégalais fait folle maintenant 14 régions du Sénégal roux roux di gog goxani ñi ngi leen di jaajeufal ñi nekk également ci la l'hôpital et ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen rek jàmm ñi nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi erreur judiciaire ak yi ñeen ñu def Nous leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot de dëddu àdduna suñu borom xar leen àjjana fi daw si gaay te yéexee ñu on avance ensemble la magie de Babo Show et de eSport TV l'actualité en contenu ak de nous, fas yéene waxtaan donc Mikayil Ngor Faye nga xam ne entraîneur am flic wax également deux bi du côté de Marseille Kiri di Yaya vers l'Europe aussi ah, donc Youssouf Dabo et également de Vinicius Junior justement Kiri di Yaya Youssouf Dabo Vinicius Junior ak tirage au sort Coupe d'Afrique des Nations date beeg yëpp di ngeen ko am ci Babo Show ba cette seetaanee vidéo donc ba pare mu dem ci Babo Show année mais extraordinaire ce jeune Yaya Djemé, club yu stop aussi Youssou Dabo mais aussi la galère de Vinicius Junior pendant ce temps il Balbagni un hein, baa wara un jouer hein, vendredi inchallah à partir de demain qui lii l'hôtel coupe d'Europe 2024 pour ci Allemagne donc l'Allemagne bien entendu beaucoup ci favori il bi nga xam recevoir avec France ak justement meilleurs joueurs yi nga xam nak nag leen di xaar ci euh, coupe d'Europe bi Kylian Mbappé Bellingham Rodri Toni Kroos Harry Kane De Bruyne Foden Musiala Griezmann Saliba Wills Van Dijk ah les ngi leen di xaar mais du ñoom aussi le ténor il est toujours là CR7 Cristiano Ronaldo mais aussi Declan Rice Anthony Rudiger Silva Fernandez Giroud Kai Havertz Modric euh, Bukayo Saka Kimmich Olmo ak Ruben Diaz nek toujours yo également dañ leen xol bu baax baax ci coupe d'Europe bi ñuy joué organiser ki nak di Wilfried Zaha moom nag gannaaw ba mu nekkee Galatasaray club yi nekk ci Angleterre ak aussi ci yenen championnat même ci Arabie Saoudite ñu koy top, ah, mom mi nga xamni il pourrait faire son retour en Prime League wala tamit dem ci Arabie Saoudite en tout cas option yi daal nay bari pour le joueur international ivoirien Wilfried Zaha pendant ce temps nag ki nga xamni ne donc joueur bi kenn dut ko présenté Morata Morata dal tamit waa Arabie Saoudite am nañu ko ci bëgg Al Shabab bu ñom ah, Habib Diallo nga xamni mi ngi insister ba pour daal di am benen joueur bu remplacer Habib Diallo ñom bëgg nañ ko mais du moom kese on parle d'autres équipes que je mène. it, it, it e est également hein, Mathis Delirte Delirte à Manchester qui demande des information du monde par rapport à la situation à Bayern de euh, Munich le joueur donc international hollandais euh, qui dit donc euh, Mathis Delirte n'a que dit Tapsoba Tapsoba à Paris Saint-Germain Neringdal, nañ daal gars et agent pour indi du côté du Paris Saint-Germain le Paris Saint-Germain qui veut renforcer sa défense et voit en Tapsoba un joueur solide pour aussi lafcat de me blessé ou Dou, bëriwul ben yon Raphaël Varane Nagwa Indy Inter ami, bu Lionel Messi la Pulga Nyoko recruté recruter en tout cas qui dit à David Beckham def premier euh, pas pour waxtaan ak mais rien de concret pour l'instant une information même confirmée par Fabrizio Romano qui nak di donc non euh, hein, mi nga xam il l'a proposé il a proposé au FC Barcelone Tangi que man na comprendre joueur bi le problème poids peut-être mon ko c'est un joueur qui est excellent mais xaw ma nag la mooy problème directement ndax problème discipline ou pas Roberto De Zerbi euh, gars selon Fabrizio Romano Mingi ngi Olympique de Marseille avec toute hein, na voilà ma ngoog hein, discrétion discrétion la fa daal di nekkee di waxtaan gars yi nag nee nañ li ci des bëriwul ay détails ci des ñëpp ngi doon xaar Conceição mais naka tey gars yi dañoo clignoter gauche daal di de droite pour daal di koy am kii nag di Terzic également l'entraîneur du Borussia Dortmund day jóge Dortmund moom mi nga xam ne ah ko Dortmund finale Ligue des Champions waxoon naa Matt Hummels dafa jote ak moom Matt Hummels daal gars yi ne bu Terzic toogee moom du daal di toog Borussia Dortmund ki ngeen gis nag Hans-Dieter Flick on ak ki nga donc Boyan krikit Boyan xam ngeen ko ancien joueur du FC Barcelone ak aussi Deco ñewon tay xol si li nga donc Barça mais profite aussi également pour xol superviser ki nga xam nak moy un jeune joueur talentueux bo xam ne gars yu bari nañ ci club yu bari nak jamono ji bëgg ko foqati du côté du FC Barcelone donc tard na pas daan si di fi ne sax boy bi da ko yob pré-saison ta mu jël décision définitive boy bi du kenen ku dul l'international sénégalais Michael Ngor Faye nga xam ne moom vacances ba il est de retour à l'entraînement avec le club club blaugrana pour waajal li nga xam ne donc seen match pour yéeg ah, donc finale bi pour yéeg euh, deuxième euh, division le Barça B bi nga xam nak euh, Michael Ngor devrait jouer mom mi nga xam actuellement ah donc c'est un joueur prometteur ba Rafael Marquez di wax ci mom bari na diko ko tàggalaf ah donc gis ngeen man nima yag wax rek Kovacic mom fraude la ci man maa wax ñuko don doon ci petite catégorie la wax donc mom fi ne nii bu ñëwé ba xam jëndee ko boy moy mooy que ne am lu manqué quoi donc on espère que avec anti Dieter Flick boy bi dina am chance mais Barça mom lo rek ay seen cat loolu kay seen cat quoi nit bu ñuul nga gis ko mu ñu percé foofu noonu yombul quoi ñi fa nekkoon ayoon ñu yaa turé sax fexe nañ ba daal di fiy jóge gars yi daal li ma nekkoon information on rendez-vous tout de suite sur Baba Show ngeen seetaan fa jëm ci Yaya Jam jéemee plutôt wax ci Youssouf Daba également euh, Vinicius Junior jaa